dafa wax ne boo amee loo bëgg ci xeeti damaan yi am soxla ci gouvernement bi da ngay bind damaan jëmee ci ministre ba nga xam ne moo amee googu wàll wax ca la nga bëgg te gàttal ko rek damaan bi am na fu muy njëkk a jaar bu dee ci ñoom ñu koy tudde daaira tut tasjil xëy na mu doon cercle inscription wala enregistrement fu ñuy enregistré maanaam fu ñuy noté demande yi bu fa jógee jàll ci directeur u cabinet bu ministère boobee nga am soxla bu jógee ci directeur u cabinet ba door a jàll nag ci ministre bi ministre bi nag mooy seet bu ko nangoo signé ko bu ko nanguwut du ko signé daa mel nag bu fekkee bañ na ba signé wu ko mooy nekkoon dañ koo nanguwut am na fu ñu tudde ñoom xis bu rasaayil fa la ñuy daal di yóbbu tamaan boobu daarul xukumati kërug gouvernement ba fil xuraa ci wilaas ya wal xasabaati ak capital yi région yi yu mattilu dana représenté al xukumata gouvernement ba fil muhafazaati ci région yi muhafizun ab gouverneur wa fil aqdiyati ci canton yi wala bu dee ci département yi qaim maqaam administrateur qaim maqaam day firi colonel di firi lieutenant waaye fii mën nañ ko fay tudd rek administrateur li kullin ñeel na kenn ku ne min huma ci ñoom ñaar daarum kër fiihaa goo xam nekk na ca mu wazafoona ay fonctionnaire yu mattiloona ay danañu représenté muxtalifa wisaaraati dawlati ajuwu tey ministère yi état bi baatu ak dawlatu day firi état du wax nguur buñ jëlee nag baatu dawlatu boole ko kilifa moom baatu màggal lay doon rek ki lee nga ne woon dawlatu raisi majlisil wusara foofa dawlatoog faxaamatu ñoo bokkoon max naa ñu koy wax son excellence muy baat bu ñuy wax rek ngir màggal kooka almuxtaaru chef du village bi am na itam ñu koy tuddee maire maireu benn village wa raisul baladiyati ak kilifa ak maire ba yu tilaani danañu représenté alxukumata gouvernement ba fil xuraa ci village yi al baladiyatu de firi maire yi yaa ngi wax itam hôtel de ville mu ne bu dee ci région yeeg département yi gouvernement bi dafay am ay bureau ñu koy tuddi ay kër nga xam ne bu dee ca gouvernance fa la gouverneur di nekk bu dee fu mel ne département wala feneen dana am ku fa toogal gouvernement bi mel ne préfet wala sous préfet wala daal ñenn ñu ne nañu miine seeni kilifa du tee nag bureau yooyee yeneen xeeti ministre yi am ci nguur gi am fa ñu leen fa toogal ni ki ki amee santé baalu ko nuru wala ki amee mbay mi baalu ko nuru mën naa am ñu leen toogal nag ca bureau yooyee ca région ya wala ca département ya bu dee wilaas yi bu dee ci ñoom foofee ci Liban te ñu tuddi almuxtaar dañ koy firee léeg-léeg chef du village dana firi itam maire bu benn village ak raisul baladiya moom jiitum maire yi ba dañ koy firee ñu koy wax maire ci boppam ñooñu ñooy représenté gouvernement bi bu dee ci village yi ashooru waxib bu danaa sopp xalama bilaadi drapeau samay dëkk bilaat jam xu balat la waaye buñ ko waxee dañ ci ëpp jublu rek dëkk ba nga dëkk na mu defee ay xaaji xaaj ñu boole yépp tudde ko bilaad udaafihu dana défendre an walis ko xàttal mamaati ba dee mooy ba faatu ahtarimu dana respecté rijaalal xukumati góori gouvernement bi aqifu dana taxaw ihtiraaman ngir ormaal la daa samaahi nashiidi alwatani yi fa dégg hymne national wala fa dégg bàkku réew mi an nashiid watani yi nekkul mudaaf ak mudaaf ilayhi bi mu koy jubal ci tubaab rek moo tax ñu boole leen man nga ne la daa samaahi nashiidi fa dégg way wa alwatani yi way national an nashiidu alwatani yu mooy bàkku réew ma ñu koy wax hymne national utixu danaa topp awaamiral xukumati ndigali gouvernement ba add faxu danaa fay maa la nga xam ne àll yi war na ma min dara iba ci ay tax damay sopp sama drapeau réew ndax mooy jëmmal sama réew dama koy aar di ko défendre jaral na ma sama bakkan ñu bokk ci gouvernement bi ku ma ci gis respecté la ndax xam ne dañ laa fal ngay liggéeyal xeet wi suñu dee woy bàkku réew mi damay jóg taxaw ndax ormal réew mi gouvernement bi la mu tëral dama koy jéem a topp bañ koo jàdd lu ma war ci xeeti taxe yu ma war a fay ni ki lempoo yu mel noonu itam dama koy fay mu ñëw ci at taw siyon xaa yëgal ne anaman zaamaay kii cosaan la ha ana za la woon dañ koy bindee nii léeg-léeg nag ha ana za asiru maa ngi dox birif xati walidi ci àndaaleeg sama baay fii shawaarihi tarabulus ci rii yi tarabulus alfayha yi ajiyaatu mutanaqilayni mbir mu nuy ñaari way déplacé min suuqin bàyyi ko ci marché ilaa suuqin jëm ci ab marché xataa wasal naa ba nu àgg ilaa saaxati talli jëm ci saaxatu tàll xay su waqaxa fa nga xam ne fa la dale nafar yi sama gis bi xalaa binaayatin ci ab bâtiment kabiratin bi aji rëy yu rafrifu boobu dana rafrafi fii axlaaha ci gën jaa kaweem mooy ci njobbaxtanam xalamu watanina drapeau suñu réew mi al muqaddas su bari bu ñu sellal tilka bâtiment boobee daarul muhawazati mooy këru gouvernance gi ne maa ngi nii ànd ak saabaay nu dox ci rii yi Trabulus Trabulus moo lu ñuy wax Tripoli dafa am Trabulus goo xam ne mooy capitalu Libi te xew-xew yi tiis yooyu amee ci jamono yi ngay dégg am Trabulus Tripoli gu nekk ca Lubnaan fa ñu taalife téere bii mais maa ngi dox ànd ak sama baay nuy dox ci rii dëkk bi tudd Trabulus nuy déplacé bàyyi ko ci marché dem ci beneen ban àgg nag ci fa ñuy wax saaxatu tàll fa nga xam ne fa la sama bët tegee ci bâtiment bu rëy rëy am drapeau réew mi bu nekk ca kaw li kaw bâtiment boobu di raf-rafi kër googu nag mooy këru gouverneur maanaam wala boog gouverneur bi foofa lay liggéeyee di ci ëpp sax foofa lay dëkk koy wax gouvernance aahinu yooyu yaa xalami yow sama drapeau bi ma shahartu mësuma yëg misla yow mi kem tey bi makka natika ci sa daraja fii nafsi ci sama bakkan wa mahabbat yi ak sama sopp laka ñeel la wa ma dalika dit loolee illaa li an naka ndara ngir naka yow ramsu yaay symbole ba ëllës yi ba nga xam ne yu waxidu dana benneele dana unifié mais dana def benn bayna ajjisaa il watani diggante parti réew mi ñu ne ay parti rek mooy ay xaaj daa am parti boo xam ne dañ koy wax jublu ci parti politique am parti boo xam ne xaaj rek nañ ci jublu man nga ne rek bay na aji saay lotto na ci diggante xaaji réew mi wala ci diggante wàlli réew mi maza tumasilu lan lay représenté hadihi l arsatu gile garabuk arsa alxadraaw gi aji wert innaha naka moom tumasilu day représenté jamaala bilaadi taarub samay dëkk jamaala xaabaatiha taarub ay gottam wa qimamiha ak yi njobbaxtanam ashaahiqati aji kawe jamaala miyaahiha ak taarub ay ndoxam almutadafiqati aji jiñu fil awdiyati ca xuriya tatamaayalu dana jaayu moom garab googu yam natan ci ndeyjoor wa yasratan ak ci càmmooñ yam natan ci ndeyjoor wa yasratan ak ci càmmooñ xalaa angaami raahi ci misi gi aji sàmm ja wa shaddwil balaa bili ak wayu picc yi bulbul yi wa taxriidi tuyóor yi ak sabub picc yi day wàqanteeg drapeau bi naa ko tey laa njëkk yëg dëgg-dëgg ni nga toll ci man ak ni ma la sopp yow drapeau bi te dara warulu ko lu may xam naa ne yaay jëmmal suñu réew mi Lubnaan ni mu doone benn nga xam ne ay xaaj xaaj la waaye jenn jëm rek la ñu def koy xaaj ngir mën koo defar mu laajte ne waaw garabug arse gi nga xam dafa wert ñu dessin ko ci drapeau bi lan lay jëmmal mu ne moom mooy jëmmal taaru dëkki liban yi mooy jëmmal taaru gottam yi ak njobaxtanam yu kaweyee kawe job maanaam dojam yu doj yu kaweyee kawe seen njobaxtan nañu rafete ba tey day jëmmal ndox yu bari am ci xur yi ci biir liban garab googu nag bu dee jaayu ci ndeyjoor ak càmmooñ day wane neexu misi yi nga xam ne moom la sàmmkat bi di sàmm maanaam xalaa ami max naam maxa muy xalaa angaami raax yi ànd ak way sàmmkat ba wa shadwil balaa bili ak jooruk picc bulbul yi wa taxor yi di tuyóor yi ak sabuk njanaaw ya dafa mel ne rek day wax ni nga xam ne garab gi bu dee jaayu na muy jëme ci ndeyjoor ak na muy jëme ci càmmooñ boole ci nag bu fekkee ne foofa ay sàmm nga fa di wayantu wayantu yu neex boole ci it xeeti picc bulbul yi bu ñu dee jooru di way ak xeeti picc yi ci des bu ñu dee sab sàmmkat yi sàmm di wayantu garab gi bu dee jaayu day mel ne day jëmmal seen way yu neex yi di jëmmal it picc yu ñu wax bulbul bu ñu dee jooru di way ak picc yi des bu ñu dee sab loolu lépp day rafet te neex moom la garab googu di jëmmal yaa arsati ahin wooy yaa arsati yow sama garabug arsa gi kam lu bare bari uhibbuki dinaa la sopp wa kam lu bare bari uqaddiruki dinaa la darajaal fa anti yow tumathilina da nga représenté ixdiraara suhooli watanina na taxub joori sunu sunu réew mi wa xisba aradihi ak naatuk ay suufam innaki naka yow tumathilina da nga représenté basaatiina tarabulusa chardey tarabulus wa antilias ak antilias wa sayda ak sayda wa soor ak soor wa sahlal biqaa ak sahlal biqaa maxa qudratiha ànd ak seen nataxaay mooy seen naataange albaasimati lay aji muuñ mooy lay aji ami tóortóor yu weex yu fet dane garabug arsa te garab gu siiw foofa ca liban moom nag garab lu garab la gu daañu ko rafetala itam kër yi dañ koy def nag ca drapeau ba muy wàqanteeg moom naa ko ni ma la soppe daal ak ni ma la tegee fu rëy rëy yéemu na ndax da ngay wane sunu suufi bayi nañu naate da ngay wane itam ki ñu wax Trablus ak Antilias ak Sayda ak Sóor ak Saxlul Biqaa yooyu ngay jëmmal ba noppi itam di wane nañu naate nañu rafete wa haadaani alxattaani ñile ñaari rëdd alxaridaani yi aji yaatu al ahmaraani yi aji xong yu mattilaani dañuy représenté shifaaha shuhadaa yi tuñi way deeña ci toolu yëkkati réew mi ñu koy wax ay martir shifaaha shuhadaa yi tuñi martir ya al mudarrajata ya di ñu taqal bi dimaay ci ay deret waxiyate ñoom tun sidu danañu sadd laxnaha seen misik alxaalida bi aji béel bi aji sax faw naa walil xurriyati ñeel na liberté alxamraa yi ngay aji xong baabun bunt yu daqu boobu def na ko fëgge bi kulliyatin ci bépp loxo mu darrajatin bu di buñ taqal deret laa déedéet bal li fi nekk xiya moom xumratu faakihati lubnaana xong xongu fruit lubnaan la alladi dati bi aji neex wa xumratu wa xumratul jamaali ak xongaayu taar ba alfitri yi bay ko jub bindub yàlla allësi ba nga xam ne yabudoo dana feeñ xalal wu jooxi ca kanam ya al lubnaaniyati yay ko jug lubnaan as saahirati yi aji mel ne dañuy jabare amma hada al bayaadu ndaal bi le weex-weex fa yuri nii dana ma wan bi wudoohin ci lu leer ànd ak leer safaa qalbin lubnaani yi selluk xoluk ku bokk ci waa liban wa husna sariratihi ak rafetuk biiram wa mahabbatihi aku soppam ngir day fi ñeel gan drapeau boo ko dee xool dafa am couleur bu xong am couleur bu weex ca digg ba mu ne nag ñaari rëdd yu yaatu yu xong yi dañuy wane ñu deexoon toolu xare ngir yëkkati turu réew mi ba ñuy dee nag ñu doon way way wii seeni gi ñu taq deret way wi nag mooy liberté moom li ci ëpp des ko am rek ci neen faaw rek nga xeex ba deret tuuru deret ju xong cooy ci la ñu amee liberté mu ne rëdd yu xong yooyu xëy na dañuy jëmmal tuñ ya nga xam ne gaa yi deewoon ci toolu xare ngir yëkkati réew mi seen tuñ yooyu nàcc nag ñu doon sadd bay réewu ñaar rëdd yu yaatu yu xong yi loolu la ñuy jëmmal mu ne déedéet neel sax dañuy jëmmal xong xongu fruit yi nga xam ne ñoo am ci liban tey fruit yu neex a neex ba tey neel xongaayu ñaar rëdd yooyu day jëmmal taar bi nga xam ne moom yàllaa ko bindee taar bi nga xam ne yàllaa ko bindee liban boo ne jàkk rek di xool réew mi taar bi ngay gis mel ni dafa lay jabar doo moomat sa bopp xongaay bi ci yaar rëdd yooyu moom lay jëmmal weex-weex boobu nag li ngay gis ci digg drapeau bi moom damay won ne ma libaane foo ko fekk ku bokk ci waa liban xolam day set wecc biiram rafet du ëmb dara lu ñaaw ci biiram damay won tam sopp gi ku bokk ci waa liban di sopp gan di bëgg gan walam antahi noppiwuma min tasawuraati ci samay jeeñeer haatihi yile xataa xasa bëggasam waalidi sama baay katifi sama baay xiqati fi sama mbagg mbagg waxaal te mu wax lii ñeel ma xëy yaa gaawal yaa muxtaar yow muxtaar inna naa naka nun nu riidu dana nam asafara tukki ila bayruuta jëm bayruut wa tabiatuma topp waalidi sama baay wa anaate man masruurun ku ñu bégal laa bi mushahadati muduni watani ci jàkkaarloog dëkki sama réew mi wa dooril hukumati ak këri gouvernement ba fiihaa ca ñoom nee na bi ma dee xool nag drapeau bi di ci xalaat yooyu xalaat sama baay daal di gësam sama bëgg ne ma eh muxtaar gaawal waaye ñun kat Beyrut lañ jëm Beyrut nag mooy capitalu Lubnaan ma daal topp ci saa baay waaye am naa bëgg am naa mbégte lool ci jàkkaarloo gi ma jàkkaarloo dëkk yu mag yi bokk ci sama réew mi jàkkaarloo këri gouvernement ya nga xam ñoo nekk ci dëkk yu mag yooyu attaajiru ab commerçant saqaafatu taajiri culture commerçant maanaam ak yewuteem kaana nekkoon na at tujjaaru commerçant ya xadiiman ca bu jëkk laayata saqafoona duñu yeewu saqaafatan ak yeewu faniyatan guy technique kaanu nekkoon nañu yetoona di dikke mooy di indi bi daraahi mi ci ay dërëm yesta jiroona danañu luye almagasina ay magasin yaaridoona danañu wone albidaxata marchandisme fiihaa ca magasin yooyee amal yow man daal ci tey jii fa inna tujjaara naka commerçant ya yataallamuuna danañu jànge fii madaarisa ci ay école xaasat ñu di spécial kullama lépp loo xam ne yataallaxu dana aju bi tijaaratihim ci seen commerce fahum ñoom yut xinoona danañu xereñe daañu mën bu baax duroosal xisaabi leçon yi calcul wa tariqata xisaabaati dafaatiri ak yoonu régler compte ya wala yoonu régler kayey compte ya yatalaqawna danañu sawoo yatalaqawna duroosan ay leçon amaliyatan yu pratique fil bay ci jaay ga wa shiraay ak jënd ga ya naal dana am sax attaajiru commerçant ba shahaadata inha id durusi diplôme àggale leçon ya commerçant yi nee na ca bu njëkk amuñu woon yeewute ci wàllu technique ab commerçant dara ñëw rek indi xaalisam wut place ni ki magasin def ca marchandisam toog daal tàmbalee jaay waaye léegi moom nee na mbirum yaxantu muy commerce daa am ay daara yoo xam ne ñoo koy jàngale xam ne spécial wàllu commerce la ñuy jàngale bu fa commerçant yi demee dañ fay jàng lépp lu aju ci wàllu commerce ba man wàllu calcul bu baax ak ni ñu régler compte dañuy jàng itam ay leçons yoo xam ne yu pratique la maanaam du rek xam yam ci waaye dañ cay def stage entraîné wu ba xam dëgg-dëgg lan mooy jaay ak jënd ak naka lañ koy defee commerçant bi sax dina di am diplôme bu ñu tuddee bu dee ci ñoom inha ut durus mu aataatu tijaarati jëfandikoo yaxantu ala taajiri war na commerçant ba an yuxdira mu indi rasamaalin capital tumma yasta ajira topp dana luye xamal maxallan place yu zayyinuhu ba dana ko rafetale bil xasaayini ci ay armuwaal wal waajihaati azujaajiyati ak i vitrine boo boolee al waajihaat ak azujajiya lay firi vitrine fekk na azujajiyati naat la ci alwajihaati wal makatibi ak ay bureau alxaasat yi spécial yashtari dana jënd albidaata marchandise yaariduha dana wane marchandise ma bisawxin ànd ak xàmmee dawq bi firi mos bi guu xàmmee bu baax yantadiru dana neggandiku ma ji al mustarina dikkuk way jënd ña yuraxibu dana yaatal bihim ci ñoom yataxaddasu dana waxtaan ilayhim jëm ci ñoom bi lutfin ci ñëwante wa adabin ak teggiin yatlubu dana sàkku al azhara njëg ya muy prix ya al maqolata yadiñu jaadul yadiñu xelu rek lay firi waaye dañ ci jublu yi xel nangu ñu wax raisonnable yaqnaaw dana doyloo bi rëb yi ci bénéfice alxalilu bi aji néew commerçant nuñ koy defee mu ne commerçant day am capital daal dem luyee place boo xam ne da koy defar ba mu rafet def ci ay dencukaay ak ay vitrine wut nag fu mel ni ay bureau maanaam foo fa la ñuy toog di fa bindee yi ñuy bind mu daal andi nag marchandise mi ca nam koy wane itam te ci ànd aku xàmmee ndax ci ni nga wane marchandise mi dana tax ñu xir caa jënd na nga ko wane itam mën naa tax am ñu ca xirut defe ne daa baaxul te fekk na ca nañ ko wane rek la su ko defee nag mu daal di xaar jëndkat yi ndegam moom am na béréb bi defar ko ba mu rafet jënd marchandise jekkal ko ba mu jekk ba neex a xool te toog nag di xaar jëndkat yi bu ñëwee mu yaatal leen di waxtaan ak ñoom ànd ak teg yi nag ñëwant di wax itam ay njëg yoo xam ne yu jaadu la du bañ bénéfice bu néew ndax bénéfice bu néew bi te nga jarale man ngaa jarale lu bari bari loo xam ne yombu njëgg nga jaaye moo tax te bu ci dara tegoo rek baax na ndax boo jaralee lu bari rek mu daal di baax anwaaxu tijaarati façon yi commerce ak tijaaratu commerce xiya moom albay mooy jaay wa shiraaw ak jënd yebbi wax dana jaay ak tujjaaru commerçant yi asiya ay yëf man xulatan yu duñu mën a toxal wa asiya ak yeneen yëf xayra man xoolat yu duñu mën a toxal al asiya aw yëf ya al man xoolatu ya duñ mën a toxal yee ñoom allati mooy ya nga xam ne yuum kii dana jàppandi naqaluhaa seenu toxal ilal bi yowti jëm ci kër ya la neexee na jëm ci néeg ya kalma waa di niki matière yi alxidaiyat yi ko jóg lekk ñu koy wax matière alimentaire wal aqmishati ak ay tiisi wal ahdiyati ak ay dàll wa mawaddil binaa yi ak matière yi tabax wa ataatil manasili ak maabali kër ya wal adawaati ak jumtukaay yi al madrasiyat yi ko jóg école wa adawaati saydi jumtukaay rëbbu wa zinati ak toilette wa xëriha ak yu dul ñoom amal asiyaaw daal yëf ya xayrul man xoolati yu dul yee ñu mën a toxal fax ya ñoom albuyootu ñoo di kër ya wal araad yi ak suuf ya wa xëyruha ak yu dul ñoom commerce dafa def ay façon ndax jëmmi commerce ci boppam mooy jaay ak jënd rek te yee ñuy jaay ak yu ñu jënd dañoo bari ci wet na mën nga ko def ñaari xaaj yoo xam ne mën nga koo jëlee fi yóbbu feneen ak yoo xam ne moom fa mu nekk boo ko jëndee mbaa nga jaay ko it kooku moom daal moom foofa la koy bàyyi rek waaye mënu ko faa jëlee kon yi nga xam ne mees na koo toxalee fii yóbbu feneen mooy lu mel ne xeet yi ñuy lekk ak naan wala xeet yi ñuy sol ni ki tiise yi wala dàll yi ak matière yi tabax yi niki ciment ak weñ ak yooyu ak meuble kër yeeg yi waa école yi soxla muy ñiy jàng école ak ña ciy jàngale ñi soxla ci jumtukaay wala xeeti ñi rëbbu wala ñuy xare ji sax yi ñuy soxla ci ay jumtukaay ak xeetu waane ji moom daal yu bare bari lañu yi nga xam nag moom boo ko jëndee itam wala boo ko jaayee ka nga ko jaay du ko mën a jële foofa mooy lu mel ne kër wala suuf lu mel noonu ku ko jënd doo ko mën a jël yóbbu al iflaasu fayit fayit maanaam perte ala taaji di war na commerçant bi añ yekkoona mu nekk daqiqan di aji xereñ fi xisaabaatihi ci ay calculeem laa yokk siru du baril minal istidaanati ci leb kamala yu dayinu nit nga xamee ne du leble kasiran lu bare bare yooyu bu dana war añ yedd fa xam mu fay duyoo na xaw ay borom fi awqaatiha ci seeni wax